mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci point bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey vendredi di septembre 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay ma ci ànd ak Amina Ndiaye maa ngi lay siyaare ziar naa la Omar bu weer di ziar képp ku ñuy suivre saa su nekk te dalaatal leen jàmm euh, ci xibaar yi. journal bu Vox Populi la ñu koy daldi ubbee mu am loo xamante ne ni moom tey ci xëtu journal yëpp Amina mi ngi ci. ginnaaw bi nga xamee ni ñenn ci opposition bi booloo woon nañu am seen kuréel bu bees bu ñu tuddee woon Yewwi Askan Wi waaye gisuñu ci woon PDS gisuñu ci woon Pape Diop gisuñu ci woon Mamadou de Decroix ñu ñuy yëgal ni nag tey fi mu toll nii ñoom ñooñu nga xamante ne gisuñu leen woon foofu ñi ngi waajal nag booloo ñoom seen biir. kon ni nga ko waxee rek ginnaaw boo opposant yu bees yi lañ koy woowee euh, da daal di ànd taxawal seen benn coalition tuddee ko yeewee askan bi mu nekk coalition boo xamante ne nag bépp xeetu opposant jamono jii nii mi ngi ca bokk waaye ginnaaw loolee ñoo ñuy waxal beneen méga coalition boo xamante ni dina juddu diggante PS BGG AJ CRD jot na ñoom ñëpp nag dinañ taxaw engagé wu ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seen ay militants. taxawal seen beneen parti dafa mel ni nag jamono ji jóge nañ doole. jóge nañu doole comme ni nga xamante ne ni noonu la ko ñeneen ñu jóge woon ba tax na journal bu l'Observateur daal di ciy fësal moom nataalu ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon njiitum réew Abdoulaye Wade mu wax ba joxoñ baaraam ba. comme ni nga ko waxee rek suñu ex njiitum réew euh, metre Abdoulaye Wade tamit nag buñ ne nee PS nag xel PDS du xel du jóg ci moom suñu suñu maam moom nag bu jógee ànd ci ak Pape Diop Decroix ànd ci ak Abdoul mbay ak yeneen visage yoo xamante ni gëjoon nañ koo gis ñoom ñëpp fas yéene taxawal seen coalition. yaakaar naa ne yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci njiitu réew bi waaye mi ngi wax ci li nga xamante ne moom mooy cent 330 milliards yi nga xamante ne ni ba ba tey ñu ngi ciy wax. kon comme ni nga ko waxee rek umpale wu leen ni Sénégal am na ba tey ay zone yoo xamante ni amaguñu accès ci électricité looloo waral suñ jutum réew débloqué woon lu toll ci 330 milliards de francs CFA ngir que fépp foo xamante ni rek ci réewum Sénégal la bokk nga mën a am courant muy fii. di village yu lointain yi ñu am na ba suñ joonu yàlla tey ji ñoo xamante ni euh, pétrole la ñuy taal am na ñoo xamante ni sondeel la ñuy taal donc suñ jutum réew daal objectif bi mooy ñëpp di taal lampe bu timis moo tax libération daal di ne naissance d'une deuxième coalition de l'opposition fi mu toll nii nag maître Wade da ngay mobiliser moom ak ñi nga xamante ne ni ñoom la ci bëgg àndal comme li ma la ko waxee woon sànq. naissance d'une nouvelle coalition de l'opposition bu nar a gën a am doole sax ndax ñi ñu yàgg lañu ci wàllum politique ku ci nekk jamono jii nii am nga say euh, militant yu nekk si ginnaaw yoo xamante ni boo jógee ñu jóg am nga ñu bari ñoo xamante ni nekk nañ seen ginnaaw euh, suñu njiitum suñu ex njiitum réew Wade bu mobiliser woon ak ànd ceeg Pape Diop. ak waa coalition jot na ak ñeneen ak ñeneen jamono ji nag dañuy toog di xaaragum rek nan lañ koy tuddee ak ban slogan lañ koy jox. yaakaar naa ne Amina dañuy yónni yàgg rek ndax yàgg dafa bawul dara moo tax journal bu Vox Populi daal di fësal Barthélemy Diaz muy waxaat rek que ni amul dara wala kenn koo xamante ne ni mun naa weñ loxoom ba dem ci élection locale yi. waaw loolu la wax ndax nee na jamono ji daal daal di seetlu ne à chaque fois am na ñuy faral di pointé wu ci wetu këram am na ñoo xamante ne dañuy faral di ko topp mu koy alerté nag ci réseaux sociaux yi ko alerté ci médias yi ak fépp. leen li mu wax daal mooy que ni bu dul suñu borom amul nit buy dox ci kaw suuf boo xamante ni mën na koo empêcher mu nekk candidat ci élection locale yi nii di ñëw waaye yemul foofu mi ngi yëgle ni bépp nit boo xamante ni teg na la bët nga koy topp. ci wetu otoom ci wetu këram ci wetu bureau ak fu mu mënti doon lekk nee na bu yab bu yaboo na nga jàpp ni boobaa di xam ne wuyu bànday baayam wuyu bànday baayam Amina Ndiaye yaakaar naa ne bu Barthélémy Dias waxee loolu moom nit ñu xam nañu ni moom ragalul te dawul yokkaa waaye am na loo xamante ne ni Amina benn lancement la boo xamante ne ni fii la amee ci Sénégal ab société la boo xamante ne ni am na ay milliards yoo xamante ne ni jóg na ci ci biir milliards yooyu am na ci douze mille wala douze millions sénégalais yoo xamante ni impacté woon nañ. Euh, comme euh, ni ma la ko waxee woon ci journal bële laa ci ñëwaat ak yow rek mbirum trois cent de francs euh, yi nga xamante ni moom la suñu njiitum réew bloqué ngir que ci réewum Sénégal fépp fu waay ci nekk rek ngay bénéficié wu ci électricité di mën a taal ventilo di mën a seetaan télé di mën a def leneen ak leneen yu nu mel loolu nag gis nañu ci biir lu toll ci un million huit cent mille yoo xamante ni. accéder nañu à l' électricité maanaam un million huit cent mille ñoo xamante ni nii euh, seen xol sedd na ñoo ngi tàmbalee di am courant comme ci na mu waree mu nekk nag loo xamante ne nee nañ dafa war a continuer de manière déterminante bu fekkante ni déterminé wu nañu rek ci projet boobee incha allah si deux mille vingt cinq ñëpp dinañu ngongo ñëpp dinañu ne gongo kon nag yàlla na ci suñu borom bi teg loxo ndax bu ci tegee loxo rek lépp daal di antu kilifa boobu ba tey ñu ngi koy ci journal yi. ci coowal li nga xamante ne moom mooy trafic passeport diplomatique jàppoon nañ ko fi nag garde à vue fële sa dikk boobu ba tey nag dossier baa ngay gën a avancé dossier baa ngay gën a avancé ba suñu joon yàlla tey jii ma ngi ci diwaanu dikk ñu téye ko pour les besoins de l'enquête ñoom ñoo ngi continuer di amal seen enquête ñoo ngi koy auditionné ak ñi nga xamante ne ñoom la ko sekkaloon kilifa bu yaanaamaar kilifa rappeur ba suñu joonu yàlla tey jii moo ngi dans de sale dara ci euh, mbirum trafic de passeport boobee waaye nag beneen journal def na ci yeneen révélation yeneen révélation mu mel ni kilifa arrêté nañu ko li tax ñu arrêté ko nag mooy mbirum trafic faux diplomatique ak visa keneen ki nga xamante ne ni arrêté nañ ko nag moom mooy kilifa wala Simon Simon yi tamit ci yaanaa maar la bokkoon moom itamit jàppaat nañu ko Euh, kii nii di kilifa depuis àllarba euh, su ma juumul ba suñu joone yàlla tey ji la nekk ci euh, loxol waa dikk boobaak léegi ñuy fësal enquête bi di ko continuer ba teg loxo kii nii di Simon Simon nag moom nee nañu daal di nañ koy teg loxo ba ñu continuer enquête bi waaye xam naa après takk der yi bu ñu ci amee plus de détails rek médias yi am ci plus de détails dinañu xam lan la ci Simon takkee ba ñu daal di koy tegaale loxo yemul foofu kii nii di El Hadji Dadji Konté tamit nag daal di koy defeere hier wonoon turu ñaari député yi nii ñoom ñoo bokk ci trafic euh, visa bi ak passeport diplomatique bi nee na nag jamono ji nag moom bal bi nee na mi ngi ci camp procureur bi naka lay def ba continuer ba xam euh, naka la ci député yooyee toppee en tout cas ouverture enquête euh, information judiciaire daal dinañ koy amal. yaakaar naa ni daal réew mi réew la goo xamante ne ni réewu état de droit la ku tegu ci yoon nu balaak yoon ku tegul ci yoon yoon jël la daal di lay teg ci yoon ki nga xamante moom mooy. Momy Kébé fi mu toll ni nag ay mbiram lëndëm na torop Momy kebe moom nag jamono ji mi ngi ci eh, sal dara comme ni ko journal bi daal di titre rek natu Kébé comme ni ko ñii ñi gën a xamee ci turam bu gàtt ñu naan ko Momy kebe moom nag ginnaaw ba mu sëykee xaar ma yàlla ak yereen eh, ñaari ne kenn ki nekk ab damm keneen ki nekk ab benn waay daal di nañ koy condamné nag mu daal di eh, fas yéene fay alal ju takkoo takkoo takku lu toll ci 166 millions. ak lu topp ak beneen 5 millions de francs CFA boo xamante ni daal moom mi Mouminato war na koo débloqué ak société fay ko. journal bii di l'observateur Amina dafa am loo xamante ne nii fësal na ko muy building bu mag ba nga xamante ne nii moom mooy building administratif Mamadou Diaba ku ne yëg na la nga xamante ne nii xewoon na fa waaye am na ay révélation yoo xam ni juddu na ci ci jabaru. commande jabaru gendarmerie ba nga xamante ne ni mu ngi ci diwaanu Touba. dixième étage moo doon lakk dixième étage moo doon lakk ca immeuble boobee ci semaine yële ñu génn mu nekk loo xamante ni nag yéeme na lool d'après sécurité bi fi nekk ak vigilance bi nga xamante ne moom moo nekk ci société bi lépp dañ ko defar minutieusement ba nga xamante ne fay du am ndax immeuble boobee xaalis bu takkoo takkoo takkoo takku lañ fa liggéey yàggul dara trent 32 mois lay am ginnaaw ba ñu débloqué lu toll ci 40 milliards de francs CFA defaraat building bi jamono ji ñuy wax ak yéen nag bépp ministre boo xamante ni sa cabinet foofu noonu la nekkoon daal di nañ lay euh, yóbbu nga nekk sans abri maanaam daal euh, tëj nañ ko parti yu bari tëj nañ ko ca immeuble ba ñenn ñi seen ay collaborateur dañ leen naa yóbbu pour ñu daal di def télétravail jamono ji daal moom nee ñu faaw ñu amal enquête bi ndax am na ay dossiers yu bari yoo xamante ni ca lakk ga la demee. ca lakk ga la demee yàlla na doon nag lakk goo xam ni moom day yóbbu ay les arènes di ñëw ak ñun Amina ci ki nga xamante ne mooy Ibou Ndiaye ñoxo bàyyi micro centralu làmb ji nee na combat Tapha Tine ak Boy Niang Tapha Tine munu ci ëpp doole Boy ñaar benn yoon. loolu la wax Ibou Ndiaye euh, Ndioxobaay euh, suñu papa Ibou Ndiaye nekk micro microcentral lu muy faral di jàngat ay combat nag euh, bari na ndax dafa fekk de mu fekk tey jamono ji nag moom nee na Tapha Tine gënatul dangereux kii nii di Boy Niang nee na Tapha dafa nekk en retard Siteu ak Papa nag am na lu mu ci wax nee na dañu nee naa war a dédommager ndax ñoom ñoo gën a souffrir ci report combat Balla Gaye numéro 2 ak Lac de Guiers numéro 2 bari na ay ndaanaan yu nekkoon ci biir làmb ji keroog ba ñuy bàyyi bëre ñoom ñaar ñi la ñu mujjee bëreel ku ci mel ni jub Diop ni Balla Gaye numéro 2 moo ko njëkk a daan Lac de Guiers numéro teg ko ci mustafaa Gueye deux derniers combats mi tamit ñoom la ci bëreel ñu daal di leen génnee làmb ji moo tax ñu am jàngar guñ leen ci defal ñoom ñaar comme ni ko journal bi euh, tiitaree rek nee nañu ñoom ñoo nekk dernier bureau wu nii ak euh, Tapha Gueye ndax euh, gis nañu Lac de ak Balla Gaye 2 ñu ci bari ñoo xamante ni daal yàgg nañ ci làmb dañuy bëreeg yow ba daal di lay yóbbu retraite maanaam dañuy bëreeg yow nga daan leen wala ñu daan la boo fu jógee ca ngay jaari daal di dem retraite ku ci mel ni Yékini moom gis nañ ba Balla Gaye nangoo ci moom couronne bi boobu la gëj takk ngembam waaye nag mi ngi teew ci làmb autrement maanaam di tëgg ay mbapatam ci yeneen raison yaakaar naa ni nekk na loo xamante ni lu am solo la suñu làmb daal di ñëw ak ñun ci Jules Balde magi Ama Balde doomi Falaye Balde waaye doomi Double Less mi ngi yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci génnub àdduna suñu papa dublees Less mi ngi wax itamit kàddu yi nga xamante ne nii wax na ko ko bu mu tëddee ci lalu hôpital kàddu yi triste triste moom la wax Jules Balde nee na kii nii di Double Less nag ba mu ko fekkee ca lalu hôpitalam euh, mu toog ñoom ñaar ñu toog di waxtaan mu téye loxoom bi dénk ko ay kàddu yoo xamante ne yaakaar na ko ci tey euh, nar na moom matale ko ala kulial nee na suñu bàpp Double Less nee na ko kii nii di Ama Balde kii nii di Lac de Guiers kii nii di Balla Gaye kii nii di Sa Thiès ma fekkee ak ma utee bu leen alal musa boole ñuy làmb bu leen alal mësa boole ñuy làmb ak lu mu mënti doon ak ku mu mënti doon nag ma ci taxawal su ma fi nekkatul tey yow Zul Bali la yaa leen di féete waajur yaa leen di féete mag yaa leen di coaché yaa leen di teg si yoon ngal la sama njaboot gi bul fexe ba ñu réer kàddu yooyu la ko dénk rawatina nag li nii di combat Ama Baldé Balla Gaye Ama Baldé Lac de Guiers Ama Baldé Sa nee na ñooñu bu ñu mës a laale te alul àjjuna bu leen ko jaral mu fekke ak mu ute mu fekkee ak mu ute waaye mu ngi yëgal di Ama Baldé nag dina ñibbisi avant màggalu Touba gi incha allah. waa avant màggalu Touba bi incha allah Ama Baldé dina ñibbisi euh, dëj bi fekku ko fi woon euh, dina ñibbisi incha allah bu dikkee rek euh, comme ni ko ñëpp doon xaaree rek metti na ci moom nag fa mu nekk ndax xam naa ba sañoon daal di teew ci li nga xamante ni moom moo di nag rek tiis bi ndax ki fi bàyyeekoo way jur la ci moom. am na solo yaakaar naa ni leeral yi tey jii loolu rek la woon wala des na Balla Gaye numéro 2 doomi Double Less gi. daal dina yëkkatiwaat ay kàddoom nag di wax ci hospitalisation papam ni papam génnee àdduna ak seen relation ñoom ñaar. waaw papaam ma génn àdduna mu toog presque ñaari fan ba ñetti fan yëkkatiwul kàddoom wax ndax nakkat bi nga xamante ni uh, moom moo ko jàppoo uh, mi ngi nettaliwaat nag dernier instant yi uh, waajuram bu góor dund ci hôpital ba ndax da ko woo ba mu ñëw ni ko bàll insisté ni ko Balla génne mu hôpital nga yóbbu ma sama kër mu insisté Balla nee na mu insisté ni ko taneegoo mu ni ko yóbbu ma sama kër ba mu demee nag yóbbu ko këram ci lendemain bi la ko rakk ji woo ni ko chuté na laataa muy préparé bay dem ñu daal ni ko daal dinay génn àdduna mu nekk mbetteel boo xamante ni nag moom waaye jàpp ne ne way juróom bu góor ci këram ba mu dëkk këram ga mu sañ ci yàgg fa lool fa la bëggoon a noppaloo noppali ko nee na taw nag ci cimetière Euh, mbër yu bari teewoon nañ fa daanaka axlu làmb yëpp teewoon nañ fa amul ñenn ñenn ñi rek la jot a gis ñu ci bari gisu leen après lay seetaan vidéo yi ci YouTube bi gis leen fa waaye képp ku fa teew rek mu gis la ak mu ñàkk laa gis jàppal ni kontaan na si yow nee na kii ni di euh, Gris Bordeaux nag moom ñaari yoon la teew gisu ko ci bëccëg bi mais guddi gi fexe na ba ñëwaat gisante ak moom. yaakaar naa ne am na solo ñoom ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi sport la bu boolewul rek warut a xàjjale te mi ngi boole ñu xam ne ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi. leeral li loolu rek la woon. waaw man de lañ leen indiloon seen xibaaru euh, revue de presse jaajëfal leen jox leen dëgg daja bu suba ak jàmm. jërë ngeen jëf.